Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous préféré Point du jour. Point du jour en ce dimanche, en ce mardi 12 mai 2020, tout juste après la conférence de presse du ministère de la Santé et de l'Action sociale pour avoir en chaud tout simplement les statistiques, les chiffres du jour. Rapidement, je m'avais vous faire euh, la situation de ce mardi 12 mai 2020. Retenez tout simplement qu'on a effectué 1099 tests réalisés au Sénégal, 109 revenus positifs, soit donc 0 cas importés 107 euh, cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, deux cas communautaires issus à Touba également, à la Padoua. aujourd'hui. justement, en ce jour encore, 27 patients ont été déclarés guéris par le ministère. Au total, à ce jour, justement, ce mardi 12 mai, on a au Sénégal 742 patients guéris. Et 1995 cas déclarés positifs finalement, 19 patients guéris et 19 décédés également. Et au total encore, dans les hôpitaux sénégalais, on a 1233 patients qui sont dans les hôpitaux sénégalais. Voilà pour le point du jour hein, ce mardi 12 mai 2020. Tout à l'heure avec moi sur ce plateau, comme chaque matin justement, Sama Sama Benga, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ba lool lool lool lool lool voilà euh, tey tamit suñu stage baa ngi nii Oustaz euh, Birane moom mooy suñu invité bu tey ji xam naa rapidement ñu ñëw ci balaa ñu ñëw ci moom nag euh, Serigne Saliou nga jox ñu d' abord chiffre tey résultat yi tey ji mardi yi waaw tey ci talaata ji hmm. Sénégal def na junni ak junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay tâches yu ñu réalisé hmm. ci lim boobu téeméer ak juróom-ñeent ñoo am jàngoro ji hmm. téeméer ak juróom ñaar cas contact maanaam ñi nga xam ne dañoo laale ak uh, ku am jàngoro ji ñaari cas communautaire maanaam ku am jàngoro ji te xamul fan la ko jëlee fukk ak juróom ñaar uh, wër nañ maanaam tey jii dinañ dellu seen kër uh, junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent sous traitement maanaam ñu ngi leen di faj ñu euh, seen wér-gu-yaram tamit mu ngi am tan bu baax yàlla hmm. yàlla dolli xeeb dolli te fëgg seen bopp bu baax alxamaamin tey tamit euh, euh, hmm. ñu ngi fii mhm. dalal fii oustaz di kenn ci oustaz yi si nekk ci kër gi mhm. euh, di waxtaane lu am solo si kër gi mhm. ñu dalal ko nag parce que ne waxtaane ak moom li nga xam ne mooy situation bi jot am démb puisque njiitu réew mi ibbi na jàkka yi ak jumaa yi ak église yi léegi euh, ñu fas ne waxtaan ak moom yaa oustaz nuyu nañ la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Salif euh, sëñ Maane ñu ngi leen di nuyu Euh, di leen ziyaar bu baax ci suba gi di sant yàlla it di leen ñaanal yàlla di leen gërëm suñu borom subhanahu wa taala ci dalal bi ngeen ñi dalal fii ci kër gi tabaarakallah macha allah di rafetlu liggéey bu baax a baax a baax macha allah. waaw Oustaz euh, tey li ñu waxtaane mooy ubbite jàkka yi ak jumaa yi ak euh, église yi. Euh, ndax yow doon nga koo xam ne euh, yàlla macha allah yaa ngi nekk ci jàkk di jiite euh, di tamit def ay waxtaanu diine yu am solo situation boobu lan lan nga ko jàngatee ak situation ba léegi coronavirus bi mu ngi fi ba léegi jàngoro ji feebar bi mu ngi law ak situa ak dogal yi nga xam ne jiitu réew mi jël na ko pour ubbi jàkka ya jumaa yi lan moo ci sa xalaat. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di waxaat alhamdulilah ala kulli haal. moy sant yàlla ci bépp jamono rek di am mbégte it tabarakallah ñaan yàlla ni ñu ubbee ni jàkk yi yàlla na doon fatxu ko ci réew mi bo xamanteni da fay dalli nek yermane jo xamne day not feebar bi nga xamne mo nek ci réew mi tabarakallah ndax bi feebar bi ñewé ci réew mi salih imam yi ak kilifa diine tabarakallah ñom ñoom ñëpp ñi daje bi ñu xamee ne wàllante bi ci dajaloo lay amee te it wax dëgg yàlla charia waajaloon na loolu ndax boo demee ci juma bokk na ci ay ngàntam feebar ci la bokk waaye su fekkee boo demee ci jumaa ji jëlee fa feebar tabaarakallahu loolu jëlee fa lor kooku ngànt la it pour nga dem fa waaye nag euh, dem ci jumaa ji julli ji euh, julli farata la mhm. kenn ci sa kër farata la ci yow waaye tiyaaba ba nga cee am yemul ak tiyaaba ja ngay am boo demee ci jàkk ja boo demee ci mbooloo ma ndax mbooloo ci sariya mu ngi tàmbalee ci ñaar yow ak sa soxna bu ngeen jullee ci kër ga rek am ngeen julli mbooloo waaye nag daraja je mu ngay gën a kawee ca biir jàkk ja ndax jàkk ja kat mooy néegu yàlla yàlla dafa wax ne wa anna al masajid lillahi fala tadu ma allah ahadan man yàlla ma moom jàkk yi te yàlla wax ne innama yaamuru al masajid allah man amana billahi wa yawmal axir yàlla nee na ñiy dundal jàkk yi mooy ñi gëm yàlla gëm yomal yomal xiyaam kon fa tabarakallahu kon jéego yi ngay def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na di dem ci jàkk ja tànk ndeyjoor boo yëkkati dañ koy yëkkati ci yow ay daraja mm-hmm. te daraja yi dañoo wax ne diggante asamaan la ak suuf noonu la toll mm-hmm. ci ay xasanaat muy ay tiyaabo yoo xam ne nii dañ la koy bindal mm-hmm. waaye tànku càmmoñ boo tegee ñi sippil ay bàkkaar yoo xamante ni daf nga ko wala yoo dafagul tabarakallahu kon jàkka dem ca rek dajeeg sa borom am ak sa borom rendez-vous boo xamante ni juróomi yoon la ci bés bi kooku lu am solo la waaye su ngant ñëwee nag tabaarakallaahu ngant mooy waral ad daruraat tubbil mahsuraat maanaam lor bu ñëwee dañ lay tabaarakallaahu daaganaan liñ la tere woon mooy ah yow kat dang nga doon dem ci jàkka waaye am na ngant bu tax ah boo fa demee kat feebar jëlee fa feebar hmm. surtout li am léegi moo taxoon ñi ne kon wér na ñu tëjandi jàkk yi waaye di may nodd ki ñu nodd bu ñu demee ne ba njiitu réew mi tabaarakallaahu ñu xool xayma ne ah jaadu na itam nag tabaarakallaahu ñi jéem a xool nu ñuy taxawee dëkk ak feebar bi wala jéem a nax feebar bi delluwaat ci jàkk ya ñenn ñi dellu ci église ya loolu am solo la ndax itam mooy jàngoro ji coronavirus moo taxoon ñu te ji jàkk yi coronavirus ba léegi moo ñu fii tay d'ailleurs gis nga tout à bees yi mm-hmm. ba léegi jàngoro gi muy fi lu lan moo waral ñu ñëwaat encore ne dañu ubbi jàkka yi diggante bi est-ce que loolu tamit xel mën na ko nangu mm-hmm. waaw xel ma mën na ko nangu ndax ci su fekkee maanaam boo demee ci yenn bërëb yi ñu ngi fexe di organiser wu ba toog di soriwante diggante bi mat mètre ci taxawaay yooyu ñu taxawoo jox ay jumtukaay ci raxasu ba jox la ay jumtukaay ci yu ñee laal seen loxo yi mooy euh, sel antiseptique yi mm-hmm. waaye jox la ay jumtukaay ci wàllu masque jox ñooñu nga xam ne ci yenn bërëb yi la ba ñu mën a organiser wu ba feebar bi du leen laal allah rawatina nag néegu yàlla yi mm-hmm. ndax su fekkee waaw su fekkee organisation bu rafet rek lislaam moo ko am l'islam moom moo am maanaam taxawaay boo xamante ni bu rafet la ci ni ñuy organisé woo ci wàllu ndax comportement bu rafet l'islam moo koy jàngale kon nag ñi nga xam ne ñooy imaam yi tabaarakallaahu war nañu mën a organiser jàkk yi it ci ñi dimbale leen dooleel leen ci ay jumtukaay waaw joxe jumtukaay yi ba mu mat sëkk waaye imam yi jël seen responsabilité ci taxawu li nga xamante ni moom mooy ña fay ñëw ba kenn ku ne boo ñëwee it ah, nga ñëw fa ak ñëwin boo xam ne danañ mën a euh, doo fa indi feebar waaye doo fa jëlee feebar waaye ña fay ñëw itam ñi ànd ak seen ànd ak seen euh, dal bu ñëwee it ñi jëfee ndigal yi nga xamante ni moom la imaam ba euh, wax ne nañ ko taxawoo jàkk ji fa tabarakallah waaw waaw waaw oustaz euh, lan mooy taxawaay bi yéen seen taxawaay ak taxawaayu ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi si euh, jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus ak situation tey comme ubbi nañ jàkk yi ubbi nañ jumaa yi lan mooy lan moo leen ciy xaar. waaw li ñuy see xaar de mooy euh, ñaan yàlla mu may ñu si ndam ñu ngi ñaan yàlla euh, yal na yàlla gën a may ñu ndam mhm, yàlla bu yàlla def ñu ubbi jumaa yi rek tabaaraka la affaire bi gën fi sax waaye dañuy ñaan yàlla. yàlla may ñu ndam niñ ubbee jumaa yi nii ak jàkk yi rek yàlla may ñu ndam jëlee fi feebar bi loolu ñuy ñaan yàlla ndax wax dëgg yàlla jàkk yi day bërëb yoo xam ne dajewaay la ay jullit dajeek seen borom kon taxawaay bi nga xam ne mooy ak taxawaayu imaam yi ak ñitu diine yi mooy ñu fexe ba gën a dooleel askan wi sensibiliser leen ci seeni xutba su dee xutba jumaa yi ñu fexe ba di wax ak askan wi ci waxin boo xamante ni daañu gën a bàyyi xel ne feebar bi mu ngi fi ndax am na ñoo xam ne ba léegi ne feebar bi am waaw te itam wax dëgg yàlla loolu feebar du wax ne boo gisul rek gëmoo ne am na kon nitu diine yi wala imaam yi ñoom itam ñi gën a taxaw tabaarakallaahu euh, ci yaatal wax wax ji jëmee ko ci askan wi bi ci des si xutba yi ñi yaatal ko ci xutba yi ñaareel bi mooy waxtaani guddi yi nga xam ne mooy am ci nawaafili hmm. ñi ci gën a yee askan wi ndax naafale yi dañuy julli naafale waaye ñu fexe ba jël juróom minutes yoo xam ne dañuy fexe ba sensibiliser nit ñi ci feebar bi nga xam ne nan nan lañ koy moytoo fa tabaarakallaahu noonu bu ko defee ak yokk ñaan yi joxe ay dog jàng alxuraan ci biir jàkka yi tabaarakallah loolu bu amee rek incha allah ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla may ñu ndam foofu loolu mooy seen taxawaay ci gën a taxaw askan wi incha allah. waaw justement euh, Aly Ngouille Ndiaye tamit wax na ci moom ministre de l' intérieur moom nee na euh, moom duñ nangu euh, nit ñi encombré fees ci jàkka yi. il faut ñu respecter benn nombre bi. Mm-hmm. Euh, est-ce que loolu tamit mën na nekk. surtout ak l'islam bi l'islam bu ñu jullee nii l'islam bi xam ne bu ñu jullee nii il ñu il faut ñu il faut ñu serré il faut ñu serrante suñu biir. Mm-hmm. te léegi distanciation sociale la ñuy wax est-ce que loolu tamit amul contradiction oustaz. waaw loolu loolu loolu mu ngi aju ci waa ñoom ñi nga xam ne ñoo saytu wàllu jàkka yi. Mm-hmm. askan wi ànd ceeg ñoom. su fekkee maanaam imam bu ne ci jàkkaam. dafa war a jël ay nit ay bilaalam wala ay jeunes yoo xam ne ñoo war a tax yi. bu moom imaam loolu ñëpp moom la ñuy moom moom kam euh, sàppe dañoo bëggoon mu fatt sàppe dañoo bëgg mu fatt mooy ñi sësaloo ndax imaam balaa kabar da daan wax ne sësaloo tànk yi jubal leen sàppe yi loolu ci julle bokk ndax waaye li ko fi jëlee dañ ne addaruraatu bil maxsuraat maanaam ngant bu ñëwee dañ lay daganal lu ñu la tere woon maanaam luñ maanaam euh, lor bu ñëwee dañ lay daganal lu ñu la tere woon kam tey yow ñun dañu waxoon ne sàppe dafa war a sësaloo febar amna, kon febar bobu moy tax léegi sësulu bobu tay day dalé di da ñàkk bi day dagan ci ñun. ci suñ julli bi yalla nangugo julli bi day dalé dagan. kenn ku ne man na taxaw nga bañ a ak sa morom. lu tax loolu julli bi nangu nak julli bi dana nangu dana nangu parce que sàppe dama lay wax na la addaroraat tubbihil mahsurat manam lor su amé dañ lay teggil la nga xamé mom lañ la tere ci benn message rek amna foy tollu yow. toll fi ñu ne la naan sàngara dagan na ci yow parce que lu tax danga fot te amoon lenn lu la fotarte boo fotartewul fot boobu danga génn àdduna te sàngara rek fa sës ñu ne kon dagan na kon sa solo mbagg yi ci sàppe yi sa solo tànk yi kooku ci julli la bokk waaye na su fekkee feebar tax na taxaw na bu ñu sosoloo dañ wàllante feebar kon ñi mën a ñàkk mën a sosolo bi day daal di dagan waaw loolu yëpp insha allahu taala ñu bàyyi ko sa xel bu ko defee léegi imaam yi taxaw ci askan wi jàppale leen ci Aly Ngouille Ndiaye li mu wax ne fukki ni rek ñaar bu dee jumaa la ngeen baal ma mhm. jumaa dañ ne mu ngi ci ngiru imaam Malik mhm. mu ngi wéeree ci fukki nit ak ñaar mhm. ak imaam ba moom foofu la tënk waxam waaye tey am na jumaa yoo xam ne mënoo tënk fukki nit ñaar rek na ñoo fay dugg ñeneen ñi ci des loolu yëpp insha allahu taala ci organisé bu ñu war organisé jàkki kam jàkke yaatu nag jumaa yi ñu xool niñ ko doxalee daal ba askan mi nekk ci jàmm feewar bi jogee fi insha allah sa kàddu mujj wala muy question sa kàddu mujj wala oustaz suma kàddu gu mujj ñi ngi sant yàlla mhm. Eh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen sant yal na yàlla barkeel kër gi yal na yàlla daf fi sutura yëkkati ko nag tabaarakallaahu bañ dégg ko ci àdduna bi yëpp mu nekk télé boo xam ne télé bu rëy rëy bu siiw a siiw la ñaan fi sutura xéwal yàlla boole seeni xol koor gi daal buy jeex yal na jeexaale yóbbuwaale mbas mi ni ñu ubbee jàkk yi nii yal nañu ci yàlla may ndam may ndam mboolem ku dëkk ci réew mi àdduna bi ba ñu ci jàkk yi dellu ci jàkk ya kenn ku ne sa borom nga yaakaar te yéen ñu ngi ko yaakaar laxum diin laxum diin kum waliya diin tabarakallah <laughs> kon ñu ngi ndokkeel ñëpp ñi nga xam ne dañ doon jooytu jàkk yi ñu mm-hmm. ubbi leen ko mm-hmm. ah waaye nag teg nañ ñu soog nag mm-hmm. waaw dañ doon wax ne nañ ubbi jàkk yi ubbi nañ jàkk yi nag léegi ne ñun ñoo war a jël suñ matukaay waaw ñoo war a jël matukaay waaw sénégalais nag li ko li gën a jafe ci moom mooy suivi waaw ubbi nañ jàkk yi rek tax nu ñu neex daf déedéet waaw dañu war a organiser nag ba jëlee fi feebar bi tabaarakallah ñu ngi leen sant baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf merci beaucoup jërëjëf Serigne Saliou jotaay bi daf leen jeex na tey waaw jotaay bi jeex na tey kàddu gi rafet na dalal nañ ko mata dalal muy oustaz Birane euh, yàlla na yàlla yokk taxawaay bi euh, sàmm ko defal ko fan mu gudd ak wér waaw di wax rek encore une fois euh, sas nañ ñu maanaam njiitu réew mi dégg na askan wi Eh, jooytu jooytu yi ñu doon jooytu pour jàkka ak jumaa yi ak église yi ubbeeku tijji nañ ko léegi nag euh, la balle est dans notre camp. maanaam nañu respecté yi nga xam ne mooy mesure barrière yi. Mhm. di utiliser gel antiseptique yi di takk masque yi te tamit euh, mën nañ bañ a encombrer jàkka yi. Mhm. képp ku mu fa fekk mën nga dugg nga julli ku mu fa fekkul nga jullee sa kër. Mhm voilà, merci merci beaucoup Cyril Salio beng il a dit la balle est dans maintenant notre camp c'est à nous de jouer Macky Sall nous a donné une passe vraiment décisive hein. à nous maintenant vraiment de contrôler le ballon pour jouer maintenant avec victoire au Laman en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui en hein, ce mardi 12 mai mais justement avant de quitter rapidement les principales chiffres les principales statistiques vraiment du jour 1099 tests effectués ce matin 109 revenus positifs dont 0 cas importés 107 cas contacts suivi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Deux cas communautaires aujourd'hui à Touba et à 27 patients guéris à ce jour. Au total, globalement, le Sénégal compte désormais 742 patients guéris depuis l'apparition de la maladie au Sénégal. 1995 cas déclarés positifs. 19 décès enregistrés. Les patients sous traitement aujourd'hui encore sont au nombre de 1233 présentement dans les hôpitaux sénégalais. Rappelez également que le Sénégal compte maintenant 9 cas graves, justement, aujourd'hui, selon tout à l'heure les chiffres du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le point du jour, ce mardi 12 mars 2020, ça n'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, juste après le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ici même sur le plateau, même heure, le point du jour, pour vous donner justement les statistiques, les chiffres des jours, les analyses, avec notamment nos invités, évidemment, au stade Birand, que vous avez vraiment quand même entendu, quelqu'un de très intéressant vraiment concernant l'ouverture ou bien la réouverture des mosquées, des, des églises, justement. En tout cas, ça n'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie coronavirus. Oui, on peut le faire. excellent sur le programme. Ramadan Karim. Au revoir. Bye bye. Merci.